ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu waa kër gi ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ci émission bi ci mel ni Madaro Anta ak ki nga xamante ni mooy Zerme maa ngi leen di nuyu di nuyu ki nga xamante ni mooy kilifa kër gi muy Alaaji Bugaan sant Alaaji Bugaan bu baax ki nga xamante ni mooy Anta moo génnee ci costume bu baax mi waxtaanee nag waxtaan bu am solo ndax ci internet bi daay ñu ni wax na ki nga xamante mooy mooy Tyco dañ ko tëj police te liñ ko tëjee du lenn lu dul fataarkaal la tatuyee waaye nag ñu war cee waxtaan ànd cee ki nga xamante ni moom mooy Babacar Babacar yegg si fataarkaal la. maaleykum salaam wa rahmatulah. tooga tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ne Fatar Kalla la moom mooy tatoué tatoué mu bëri ay pexe-pexe yoo xamante ne gars yi ñu ngi koy tatoué dama leen koy wan nii Mabakar la Anta bu doonee ne dañoo jël Anta Anta ci boppam naan koy futti nii tatoué fii naa leen faram fàcce fan nga war a téye booy Fatar Kalla bu doonee ne Anta dañoo jël fii Anta jëlal Babacar jëlal dañoo jël fii wu Anta fii nii daan di koy tatoué fii fii wu Anta daan di koy tatoué naa faram fàcce bu doonee dañoo jël fii wu Anta fii fii Anta fii daan di koy tatoué yooyu yëpp danañ ko faram fàcce Fatar Kalla kon Babacar jëlal alaaji bugaan dañuy jàngale rek. di sant kilifa kër kon dama bëgg man daaro nga ñëw ñu wane ko ñaar nii dégg nga dindi sa costume bi futti ko teg ne dégg anta bu noonee ne dañoo yëkkati anta ni yëkkati ni anta mu anta mi yëkkati ko teel teel alaaji bu ñeel ko ah, dañuy jàngale alaaji bugaan dégg nga tee bu anta bi nii waa léegi bu doonee bu anta mi mu ngi nii fa taarkaal la fan nga war a mën a téye pour mën a tatouer da nga koy wala nga téye ko fii naan da koy xëcc di ko bu boobaa boo defee ni nooy nooy gii mën naa indi problème man li ma ci gën a naqane nga ñëw fekk sa nijaay mu toog nga ne ko nijaay tatouer naa mu ne la nga ne ko fii mu amee fu la da lay dàq da fase fa taarkaal la alaaji bugaan dañuy jàngale yéenal xoolal